كثير من الشيء نبت في كرم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar te di jox ku nekk aw wàccuwaayam di nga xamal ni ñoo ngi fii tey ci kër Serigne Saliou Mbacke di fi dajje ci ndigalam lo xamni mo nako nu joxoon muy nu daan ko and ak mom muy ben pan rajab bi bis bis bi nak cosaan li len rek la ndigal la lo xamni ne daf ñu koo baaxe woon danoo amone suñu bis boo xamni ne danoo koo daje bëgg a sant sëñ Tuubaa ñëw di ci laaj ndigal mu xamal ni bis bi bis bobu ma leen koy jappal daal di wax ni bis bi sax mën naa doon ba wala alxames ben fan ci yar rajab bi su ko defé ngeen dik defé ko fi fi man ci sunu mbaar mii di lo Mawlo Fawzeyni ñu dajé fi bis bobé keroog bañ fi dajé ba jang ba ñuy waccé mu wax ñu da ma bét sax ci bis bi dé wayé foogoo ma mako won ni wayé ni ngeen japp ni bis bi mom may leen ko ci sama bop sa bu del ñu bokk ko and yendu ci kër gi ñu yendo ko ni waaye bis bii moom da ngeen ma cee bett ren yàlla dogal nag ànd nañ ko moom juróom-ñaari at yoo xam ne saa bu ndikkee dikkee ci mbaaru moo loon foo seen mi la ñuy yendu suñ mu ne waa kër gi nañ ubbi bunt yëpp bu kenn tëj benn bunt ndax ñi fi ñëw ñëpp laa bëgg a gis te ñoom ñëpp ma bëgg a gis bu kenn tëj benn bunt noonu lañ ko daan doxee moom suñu jëwriñ nag lañ ko àndaloon muy sëriñ aaramañang wakaana akkan moom lañ ko àndaloon mu jiitanu ko Serigne Thierno Bousso daan na ci daan daan na ci taxaw taxawaay bu rafet a rafet ak eh, mbokki mbokki duuskatu xasaay yi yëpp fu ci nekk la nit ñi daan jóge di ñëw waa Kaolack sëñ Mor Thioune daan na ànd ak ñoom waa Ndakaaru sëñ Ali Diop mi ne lu baax xadim ma fa ma xadimat xidma daan na ànd ak ñoom ñii ñëw waa Touba gii sëñ Maysa Kase ak mboolem duuskatu xasaay bi waa daayira Fulkul Masoon ñun ñëpp ñoo daan daje ñëw yend koog moom ci kër gi yàlla dogal nag bi ñu fi nekkee moom ba def nañ ko juróom-ñaari at mu wàcc liggéey dellu ci àjjana ku baax kii nga xam ne moom la ñu bataleel keroog bañ demee ca moom bay leeral ko mbir mi ni mu demee mu ne fas naa ko yéene ànd ak yéen li fekk nu koy man li fekk nu fi ne fas naa ko yéene ànd ak yéen na ngeen fexee nag ba bu leen ci dugal dara rey àdduna loolu daal la moom daal li mu li mu ci wax daal mooy na ngeen fexe ba bu ci dugal dara rey àdduna su ko defee li ngeen ci bëgg su ko yàlla nangoo ki ngeen koy defal dina ci jot ñun tam dinañ ci jariñu loolu nag moo nu joxoon digal li ñu nañ koy doxee noonu mun se mooy sëñ Seex Mbàkke mii mun sëñ Seex Saliou nii ñaan nag suñ borom bàyyil ñu ko fi ba mu yeggale naa li nga xam ne moom la sañ sëñ Saliou naaloon batale ko ko na ko yeggale coleet ci sagom ba sas yeneenam bis bi nag day bis boo xam ne dadul bis bu ñuy déclaré ci rajo bi di ko yëgle ndax daa mës ñu ko cee doxe murid yi ñoo am pas-pas boo xam ne bëgg nañoo feeñal doole ji nga xam ne moom la ñuy Serigne Saliou dooleeloon ci xasida yi bëgg nañoo joxe njukkal ba tax na daanaka yëgle bi sax demee noonu ku ci nekk yaa ngi koy fuglu na ngay fugloo màggal gi nga fugloo ndax bisub Sëñ Saliou bi ñun yamalu ko yabale wuñ ko benn bis dañ fiy daje xëyis bi di jàng alxuraan jàng xasaayit lii rek mooy liggéey bi lii daal mooy sabat bi sëriñ bi moo joxoon digal li ne may naa leen ko ci sama jëmm su dikkatee ñu ànd ko yendoo ko ci ëtt bii di Matlaboul Fawzeyni moo la waxoon ne fii la sëñ bi doon taalife xasida ak Matlaboul Fawzeyni fii la ko jaal ya fekkoon ba mu ba mu joxoñ kenn ka mu jëm sow mu joxoñ kenn ka mu jëm penku loolu moo ñu ko nettali woon fii kon nag ku baax ki loolu rek mooy mooy sabab bi mbooloo mi nga xam ne moo fi daje seen yitte jëpp mooy Serigne Saliou suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem Serigne Cheikh Mbacke moom sëñ Saliou ko fi. ba yéenam jëpp mu yokk mu yeggal ko keleet ci sagoom yàlla ko yàlla may wér yàlla ko yàlla tëbb kàttan yàlla ko yàlla jox at yoo xam ne la mu bëgg dina ko ci def ba mu sotti coleet ci barke borom Tuubaa barke Seex Saaliu Mbàkke kon nag lii rek lan lan amoon ci liñ jot li laltaay yi nag nga xam ne moom la ñuy laltaayee bis bi jàng nañ ci ay ma muxaddamatul xidma lim yi yaatoo yaatoo jàng nañ ci ay nóor daara lim yi yaatoo yaatoo yaatu mboolem jaal ba maraaq mafaatri bisri yooyu yëpp lutin jàng nañ ci ay lim yu yaatoo yaatoo yaatu da neex ñu koy tudd fii ndax sëriñ boon waxoon ni la ngeen di jàng bu leen ko lim mukk naan jàng nañ nangam jàng nañ nangam sëñ Cheikh Mbacke moo ko wax mu dugg sama nopp bii na ngeen jàng ngir jëm yàlla te yéene yow di sëñ Saliou su ko yàlla nangoo sëñ Saliou dina ci jot su sëñ Saliou jotee dinañ jariñu lii daal moo ñu ko waxoon moo tax ñëmewu ñoo tudd ni jàng nañ nangam jàng nañ nangam wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati wasalaamualeykum wa rahmatullah ما زاغوا